yo yo what's up guys? so boy Jamil boy, ñu ngi nii fii waa Bleja Zes Media la yéen xam ngeen nakala. la comme tey dañ génn street interview la leen amal so right now ñu ngi nii Bleja dañoo dugg a xool nuñ ko amee ak booy ak cape yi kuñ si munti am rek yee waaye naka la ay baa yaay ko nu fa ay baa tur bi Chaser Chaser ok Chaser am nga dream right Yeah, every, kind of, my tool be shared it all. Every dreamer is a chaser. That's why they call me Little Chaser. So yeah, I got dreams. What's your dream? My dreams. <laughs> I just, I just, I just want to have a, I just want to have a great ending. That's my dream. You understand? I don't need too much. I need something that will hang. At the end of the day, that my am peace. Understand? you, everybody talk about money, but sometimes you get a lot of money, you don't got peace of mind. You understand what I mean? Maluma Solamoneka, eh, peace of mind. And with money too, you can get peace of mind by too much of money. I want to make sure my mommy's side, my little sister's side, my people around me is alright. So that's what's up, man. But most importantly, my dream is to have a great ending, my nigga. Because this shit is temporary, for me? Yeah. You living a uh, YouTuber, right? Yeah, YouTube, like, I ban that league. I don't really do that shit no more, man. Okay, okay, okay. Right now, okay. you have stopped doing YouTube. Yeah, I stopped I stopped doing outside pranks like action random people, some boyfriend be acne pranks. I stopped. Uh, yeah, well, I'm not gonna stop. The reason being is like Gambians don't really support, and also that doesn't mean what I give up. Understand? I through my uh, YouTube journey, that's when I find out La La bugade. I want to be a filmmaker now. You understand? So when I find it out, Luno, my park YouTube, then I start making films. So that's the reason. So yeah. Uh, cool. So like, your club is 150k right now. Mm. It's one born invest. Man, right now, so my situation is crazy right now. So 50k small I'm effective margin the Saku Maro Saku during Sabole Jimbo Sabunde. My job maybe let's say 5k the remaining my pocket ko be yalla su water because yalla moo dee ñëw so 50k doo ko mun invest Gambia si bon bon may baawe lu de ah dara be waaw yow fa naa ñu bëri xam ah maybe yeah ah, most black most black most mm -hmm. all right dafa am lu la bëggoon laaj lu gàtt rek. Eh, eh, du am nga dream right? Yeah, I want to be a YouTuber bro. I want to be a greatest in the voilà Gambia dama bëgg a jël YouTube bro ma yóbbu ko si kanam and dama need seen support bro dama leen subscribe on my site bro te xoolal one day xoolal mag leen ko tey aw oh, make it to the top um, mm-hmm. ak Gambia ak ku ma joxoon 50k waaye naa dëkk bi nu mel waaw ah, bro man time bi samay wala suma studio bi lay dem bil live stream rek lay lay dóor bro I want to be a YouTuber bro wala ku ma mën a support sa wala anything bro 50k soo ma ko time bi damaa def jënd i meek yu soxor caméra yu dof di def live stream yu soxor sa bro. ok ne k bi nga la may loolu yëpp. ah du ma ko mën a may waaye tamit lu ma si mën a aar tamit ko si ma. get what I want link ak yooyu noonu comme ku ma bëgg a link jàppale ma yooyu yeah Black Moz uh, on YouTube Black Moz on TikTok uh, nga dem IG Moz tat 100x uh, yeah soo demee yeah 100x di nga ma am yeah alright dégg ngeen ko dugaleen TikTok YouTube Instagram ngeen follow ko Black Moz la TikTok YouTube Insta Instagram Moz naka Moz Moz 100x alright dégg ngeen loolu bro Sabaka waaw nu fa demee maa ngi ba Fatou fario ya yaa neex te da nga ñëw um dañ la bëggoon a laaj lu ndaw rek da da ya. am hmm. nah, nah, dream right dream ban sa fon dream how ma di yow sa dream rek what's your dream hmm. lu what's your dream Lama mo nekk sa dream like What now wait what do you want to be in the future i want to be a teacher You want to be the teacher? Yeah. Okay, fine. You are in school still? No. Now graduate? Mm-mm. Now am a biology. And you want to be a teacher? Mm -hmm. Okay, fine. It's not my... Like, buy new... Buy new sign question, bro. Yeah, what's up? Well, I'm cool, and what's the word? Good, man. How are you? Motarex. X. Yeah, any platform. I'm an artist, you know. Artist no. Yeah, artist now. Uh, yeah. Um, Nyada, Nyada songs are released right now? Uh, right now, I think five. Yeah, but my latest song with my street code. Y'all go check it out. More x anywhere. More x right? Yeah. Any platform, right? Yeah. Right. Um. Okay. So your are artist now. Yeah. Right now, okay. So now you want to pick this board go. You not going to have No Not going go. Okay. I'ma just build up my studio. I'm gonna invest so every uh, music thing with that. Lo hamne rahma gina jam lo kana. Yeah. Kasi hamna later you gonna pay off. I believe that. Yeah, my unfit. We hamna. So, yeah. My ba? How to Bad boy lucky. Bad boy? Lucky. Bad boy lucky. Yeah. Alright, good. boy, I'm a dreamer. Yeah. Okay, let me get a dream. My dream. Um, it's come right now, mass media. Dafa dox pour moo fii dafa dox diga waaw si media laa nekk so but nit koo gis am na dream to be so waaw comme mu nga ñëw wax loolu bad boy rek doo su nekkul yëpp sax tuuti rek yeah spécialiste man am a professeur in yaa and then my involve si music tam xam nga so mooy loolu ok léegi yow ku like fifty k right now mm-hmm. boo ko invest si carpentry wala si music fifty k hmm. yeah I have lot of xam nga am naa lu bëri fifty k boobu loolu su ma la soo ma ko joxee naa am fu bëri fu ma koy def so mooy loolu ida comme right now loo nekk di wax si carpentry wala si lii wala si music waaw right now because carpentry am naa loo xam ne mun naa job xam nga day am loo xam ne mën naa ko def si carpentry bi ma def ko si musique moo ma gën a right now. si musique waaw so yow si musique nga gën a si musique nga gis sa bopp rek. moo nekk de because ma lay dimbale ma a xam nga def si musique bi because mun def musique bi daal some cas sam nga. waaw ok nu fa demee. nu kuul ma. luy diir bi booy. ñu soxla ñu noonu. tur bi tur bi. ma Foxé eh, mooy artiste name bi right. moo nekk artiste name. ok a Eh, am na am na dream right now. Eh, dama am dream waaye suma boy fu naa miin dama gën a soxla. dream laa miin like what do you want to in the future. ah suma future. Hmm. ah waaye man dama bëgg wala ma mun a fa suma mairie yi noonu ak suma daati yi noonu suma duggee si bagage yi dama bëgg wala ma dama dama dugg si bagage yi. ok eh, léegi yow su la joxoon fifty right now. loo ko defee. man gars yi ma joxee fifty k. Hmm. ay maa génnee twenty thousand bi la ma jox thirty thousand suma mairie daal li ñuy jënd saako maal pour famille am bravo yi eh eh tuba eh pour yaay ba eh na tuda Musa Musa ya. Musa am nga dream ya am nga dream ok lagi dama bëgg nga wax ma sa dream nal la man ibn la dama dee jàng Quran Quran lah jàng bima ma ya da nga jeexal Quran ya ok what do you want to be in the future in the future hmm, maybe stars Right. Yeah. If it out right now. Silo ko waaw damaa dem ma sampa jaaga lu desee ma dem ma lifin miskin yi ma jox miskin yi. loolu xalaat baax la waaye foog nga ne fi si su mën a sampa sampa jaaga ba pare lu des nga jox miskin yi. <laughs> su sampuree tamit dina dina dem ba lifin xam nga lu ma koy wax nag. am naa am naa

وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نون ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تقم مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله كم إذا نقرأ إبراهيم موسى موسى موسى موسى نقرأ موسى قول ما شاء الله موسى فهم نقرأ نايس ني آه تدا آه، من ما يتدو إلسي LC. LC. waaw ok am nga dream. non waaw am naa vision. am nga vision waaw léegi dama bëgg nga wax ni lan sa dream. Hmm, luy sama vision heure yi nii. Hmm. man daal artiste. waaw artiste mooy sama vision quoi. artiste waaw. yaa ngi woy wala commencé guloo. maa ngi woy ma ngi génne ay clip. Hmm. waaw ok ban façon musique man drill. drill. ok léegi yow su la joxoon fifty right now ఫిఫ్టీ hmm. bu ñu ma joxee hmm. bu ñu ko joxee heure hmm. si lu bëre parce que euh, maa ngi xalaat ay sama avenir si lu bëre si wàllum art bi waaw ah, mooy muy kura naka la mun na ko am lu mu waaw kan la si kan la si lekot wala lekk ko ci tànn rek. waaw acca acca yéen ñëpp soo leen paree sax. waaw ku fi ok good good good nu fa demee mbokam. muy good. tur bi naka. man Abdourahmane. Abdourahmane Ba. Abdourahmane Ba. artiste nga right. yeah. lan mooy sa aris name bi. King J Boy. King J Boy. yeah. ban façon musique nga def. love tune. Hmm? love. love song. yeah. afro. ok fine. léegi am na dream right. dream dream dream what's dream. yeah. ok la moo nekk sa dream. ah suma dream bi dama bëgg film nekk big artist like ñoom Juju loolu laa bëgg a léegi yow léegi la joxoon k right now foo ko dugal. suma amoon right now k k boobu noonu. right now. Ndiyamaanika ndiyilike EP uh shoot video kuluma buga mun social. Yeah. Okay. Awa awa awa fam nufa deme. My bama. Ni kula. Yeah, me kula. Good good good good. Yeah yeah my brother. So Loni Amal. Naka to da? Yeah, my name is Drobo, you know. Drobo. My nickname is Drobo, but my real name is Abrahman. Abrahman. Yeah. Okay. Drobo, my artist name. Yeah, my artist name. You know? Okay, fine. Yeah. Um, I'm not. I'm not dream right now. No, I'm not dream. no dream dream like comme just pour ma way ni wala dama min da am nga dream dream wow okay what's your dream comme what la mo nek sa dream what do you want to be in the future comme future comme just suma future kay i ah, just suma yalla suma don jabalé bu gana comme ma nek ci sam ni comme yalla jabalé mo ci sam mo meuna ci damé ci lu beuri fajj suma solo yu beuri ci sam xam nga so just mo ma gëna fajj nu fa demé ay baba lu debi ah may ni rek good no tudda ma tudda ibrahima boy Ibrahim. Yeah. Uh, good. Ibrahim, um, I'm not dream? Dream? Hmm. Man, yeah, I'm not dream kay. Good. So, lagi nama buka, nama buka, bëgg dream lala. Kan mana nggak buka mas-mas dream lala, Yeah. mas-mas dream ma bukan aneh nekk borom alal. Yeah, bukan aneh nekk borom alal man jàppale semua family bi. Ama jàppale ñoo nyam ne amun, Yeah. lalu moo nekk sa dream. yeah loolu moo kesedrip. sa borom alal. waaw jàppale semua family.

major time is tau Kamu kau juga si Forest Street, Madrid. Forest Street. Ya. So kau nga na tau mën na laa startal iya Yeah, yeah, loolu soo 100 euro so nga dee start. Nga so ame 100 euro sax daf laa start wow, wow. wow Oke waaw. Ok ban impact la am si society Forest Street, right? Iya. Um, ya, Oke, ban impact la am si society Impact like. Like kom lo ban njëriñ la moo am fii loomo ke xam nga nit yu bari xamuñ ko comme soko fa dugale da nga day jënda bitcoin wala lini e-torrent léegi da ko day jënda nga trip nga sel ko fofu tamit price direct demuna increase def demuna mën a lo, temu loo mun nga day ñaka mun nga day am té lo tam def dem daf la day nek nga millionnaire pass hmm, money la right oh, yeah yeah boy people la boy nga business man la xam yeah business man okay ñu ngi si ñu ko right lu deal bi deal bi Babacar Babacar Babacar Fall. Babacar yow. Sita. Sita waaw mbër nga. taalibe bu ah, yaay waajal combat waaw. yaay waajal combat bi waaw wow. ay loolu am pare ay damay am ndam sax. waaw damay bëgg a dara lu ndaw ah. am nga dream. dream. dream comme loo bëgg a loo bëgg doon ëllëg daal. man lu ma bëgg a doon ëllëg maanaam lu ma bëgg doon ëllëg hmm. waaw. maanaam loolu na doon lu nga xamante ne na doon gënt si gars yi quoi maanaam mu bett gars yi trop defar sama avenir def lu baax def lu nga xamante ne di dina yéeme gars yi trop xam nga yaa ma gën a xam gars yi ñu ne saabu kese du fóot boppam waa te ma lu ma yéene sama bopp laa yéene samay morom waa lu baax daal waaw avenir bu baax laa yéene ñëpp waa waaw ak jama salaam lu ma yéene sama bopp. yow nag yow la mooy sa dream. moo bëgg a doon suma lu ma bëgg a doon non li ma bëgg di poslu di sedau, daw comme sama liggéey gii nii ma nekk si dem ba tëra sama gaay waaw yow أعوذ بالله من الشيطان وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نون ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تقم مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله